mbay bokk na ci li gën a gaaw a suqali am réew loolee la Abdou Ka xam ba tax na at mu jot day bay ci toolam yi nga xam ne moo nekkee ci bërëb bi nga xam ne moom lañ dëppee Taïf nekkee ci wetu autoroute à bi mu nekk ay tool yu cosaanee Abdou Lahad Ka dongob sëñ Abdou Lahad yàlla moo dogal fii mooy sama cosaan bërëb bii nga ma fekk ñuy tool yi ci bayti ja ñu ko wax Taïf fii la Euh, sama waay joxoon sëñ Abdou Lahad bu xëyee doxantu ñëw fii ñu lalal ko basang ci si daada ci walla wala pilaan bi ci rat gi mu toog sama baay toog nit ñi liggéey fii Abdou Lahad Dieng Baraan ñoom Abdou Lahad ñoom ñoo nekkoon ci daara ji nga xam ne bi mu ñëwee ni sama baay dama bëgg fu mu liggéeyale sëñ Tuubaa te yow rek dañ ne ma yow rek yaa am fu ma xaj sama baay ne ko doomi sëñ Tuubaa de awma fu mu xaj waaye li ma am danaa la ko jox daal koy jox ànd ak moom ñëw ba ci tool bi mu wan ko ko mu jël sëfoor euh, euh, bi mu àndaloon ak sama taawa baay ñu dem jëli sëñ musaaka Ka sëñ Moussa Ka ñëw léemu tool bi sama baay woowaa tund wi ñu ñëw daal di koy ruuj gor ko di di mu di fi bay mu sampoon fi daara ji di fi liggéey bi ñamono bi ñuy liggéey jumaa ji lépp lu mu fi mës a ñorle ak lu mu ñorle bokki barga fii la ci jumaa ji la ko daan yóbbu booba jamono booba euh, sëñ Fallou mi ngi bay euh, aliya moo doonoon tool yi su waxtu déq yi jotee wala leneen sama baay sama oto baay moo daan wërtund bi jël nit ñi yóbbu ko ci tool yi ñu ne woote nañ aliya ah, loolu mooy mooy cosaanu tool yi sama baay nag nekk fi ba jóge fi euh, samay mag nekk fi moo tax mooy këru cosaan gi mooy dëkku cosaan bi mooy tooli cosaan yi. tool yi nga xam ne nag Abdou Lahad Ka moom lay bay am na ci pàcc goo xam ne moom moo ko dagoon jaay ko zone industrielle bi nga xam ne moom lañ bëgg a taxawal fii ci Touba Mbacké. lii may bay li ci topp moom lañ jox moom laa jox zone industrielle bi nga xam ne opérateur économique ñoom la ko jox boo jëlee lii ba génn poto yi poto yi nga gis ak euh, mooy digaloo bi nga xam ne lii li ma jox opérateur économique yi. pour zone industrielle bi foofu lañ tàmbalee li tàmbalee ci li war poté nag loolu mooy sama tool yi nga xam ne moom lañ moom. li nga xam ne nag mooy zone industrielle bi loolu aussi ñoom dañ ko jënd nañ ko ñoo ko moom bayeeguñu ko mais ma maa ngi koy maa ko bay pour le moment waaw parce que jublooguñ ci ren moo tax bi ñu waxee masal mi ko jiite jox ma ko ne ma mën nga boo ko soxlaa man nga cee bay foofu laa def buur li gerte gi nga xam ne mooy bi ngay dugg ci tool bi. at mu jot ci tool yi Abdou Lahad Ka dina fi bay ay hectares yu yaatoo yaatu ci dugub ak gerte ren jii rek li nga xam ne moom la ji ci gerte boo ko xaymaa ci tool bi toll na ci 89 hectares. gerte gi moom mu ngi nii yaatu na ndax yaakaar naa ne gerte gi mën na 80 89 hectares donc mooy mooy partie bi partie bi nag mesuré guma ko bi nga xam ne moom laa jël ci industriel bi en tout cas euh, yaar moom def nañ ko ji nañ. Eh, fexe nañ ba am jiwu rafet fexe nañ ba mu set danañ fexe ba mu set li ci def nag suñu borom ko moom. mbay mi nga xam ne moom la Abdou Lahad di def moo di mbayum démb ak mbayum tey la boole muy agriculture traditionnelle ak moderne ndax day jëfandikoo ay fas ba léegi ak machine artisanale yi boole kook ay tracteur maa ngi xam nga fas moom day sama cosaan day sama euh, passion. musuma tàggu ak moom ñu ngi ñu ngi ak fas yi ñu ngi ak tracteurs yi tracteurs yi nag ñoo tax mbay mi gën a mën a yaatoo nii moo tax mu gën a facile nii ndax tracteur mën naa xëy bay bay 4 hectares mën naa xëy ji ko bay ko waaw chaque jour tracteur buy ji mën naa xëy ji 4 hectares 5 buy bay mën naa xëy bay 4 hectares gis nga ko nii defe naa ne gis nga ko ndax mbayam tracteur li ko tax a am solo da ngay machine bi rek kenn nit moo ciy topp donc muy dem donc loolu loolu la mbay mi am solo buy jiit kenn nit rek mooy topp ci ci nji mi tracteur mën naa xëy ji 2 tonnes 500 3 tonnes kemb. wàllum jiwu nag at mu jot ñu dégg ko ci réew mi ci diggante état ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di baykat yi moom Abdou Lahad Ka di xamle ne mësula jot jiwu ci état te it mësu koo laaj. jiwu nag moom yàlla dogal na xëy na mësuma koo laaj nag sax wax dëgg mu jot mësuma koo jot waaye mësuma koo laaj. engrais daal moom danaa ko wut bu ñu subventionné ma jënd ci bu ñu tàmbalee waaye ren ji xam nga dugub ji laaj na engrais bu yàgg-yàgg gis nga ko nii sax na bay nañ ko engrais nañ ko bayaat nañ ko nii donc di xaar suñu borom tabaaraka wa taala Abdou Lahad bu Touba wala directeur Touba matériaux wala Abdou Lahad agriculteur éleveur lu ci mën di doon mu ngi gérer bu baax a baax emploi du temps bëgg goo xam ne nag bëgg na ko mbay tax na ba lu mu xat-xat bés bu yàlla sàkk dana ñëw fii ci tool yi ngir nemmeeku liggéey bi fu mu toll bu ma sëñ bi soxloo bu ma xëyee sëñ bi amul yitte ci man bu sëñ bi am yitte nag euh, benn poste benn yitte la mu yittee sëñ bi su fekkee ne nag xëy naa man euh, ma ne liibar dem liggéey damay xëy jaar maire yi su ma afee courrier bu may signé ma signé ko su ma amee lu may rek rek la su ma fa jógee dem université 11 heures ba 14 heures bu ma jullee tisbaar ba noppi nag dem ci tool yi. tool yi moom saa bu ma wàccee rek moom maa ngi fi même bu ma wàccoon 18 heures danaa ñëw ci tool yi. tool yi nag bañ jiyee gerteeg léegi daanaka teg na weer. taw bi mooy juróomeelu taw ci nawet bi taw bi mooy juróomi taw ci nawet bi la 11 août la 11 juin bi mu tawee rek donc le 13 lañ tàmbali ñibbi gerte gi am na un mois et quelque tey un mois et quelques parce que le treize la le treize la quatorze lañ ko jiwoon euh, juin donc ba tey le dix-neuf donc def na un mois et quelque moo tax ñuy profité di ko xotti parce que léegi tey moom machine dootu ci mën a dugg. li gën a gaaw ngir suqali réew mi di Sénégal moo di ñu jaarale ko ci mbay mi ak sàmm gi loole di xalaatu Abdou Lahad Ka loole nag mi ngi ciy woo mboolem autorité yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñu dellu ci tool yi di bay ndax dara gënu ko ci am réew. xam nga euh, sëñ Fallou Gallas balaa muy neex a wax yàlla nañu yàlla may fan wu gudd ñu am juróomi at ñeenti at ci kanam ma ne la defe naa mas naa la ko wax yàlla na def suñu fan fekk ko ñu am ñu dund lu raw loolu mais xam nga opérat développement économique et social ci ci Afrique yoon bi ci gën a gaaw mooy agriculture élevage développement foofu loolu rek moo mën a indi développement économique et sociale ci euh, Sénégal yaakaar naa ne aussi fi mu nekk nii des na tuuti opérateur économique yëpp ak bailleurs yi ñëw jóge jóge bitim réew di ñëw yëpp danañu daw uti agriculture dem ci suuf si waaw parce que suuf si développement bi ci suuf si la ressource bi ne ci suuf si ak agriculture bi mooy agriculture ci la bokk développement Sénégal foofu rek rek la mën a jógee mm-hmm. bu ñu ko bu ñu ko négligé rek gën a tàdd ci euh, développement économique nu ñu ci gën a jubloo rek gën a développement économique et social bi gën a gën a gën a gën gën a gaaw man nit dama gëm ne dafa war a jéem a dem ba ku ndimbal na ca fekk loxol borom la wolof wax nit day am ambition def dara am pastef bi décidé ko di ko def saa bu ko ci ndimbal fekkee dolli ko waaye dimbale ma ma jóg dimbale ma ma dox loolu dafa yomb ku koy def amaana bu la dimbalee ba nga jógee man ngaa bañ a dox wala buñ la dimbalee ngay dox buñ bàyyee mën ngaa taxaw waaw euh, cest à état Sénégal loolu defe naa ne mi nga ci war a yeewu war na ci yeewu am na euh, ñoo xam ne bu leen jàppale woon ci ci ci agriculture euh, donc yaakaar naa ne réew mi dana gën a suqa suqaliku ci développement bi dana ci lay gën a gaawe ndax boo xoolee bu fekkoon ne tey dañu ne li ñu daan wax jël nañ 40 pour cent des des des des réew mi def ko ci éducation jël nañ mais defe naa ne bu ñu jëloon 50 à 60 pour cent ñu ko def ci agriculture benn at ñaari at ñetti at donc yaakaar naa ne agriculture réew mi dana dana dana feeñ ci réew mi xoolal fii ñaata nit ñoo fi nekk ñaa ab tracteur ak fas yi fi mu nekk nii fukki nit ak juróom ñoo fi nekk yoo xam ne dama leen di fay juróomi weer juróom benn weer fi la ñuy nekk ba nawet bi jeex ñooy ñooy ruuj tool yi ñoo koy ji ñoo koy bay ñoo koy def léeg-léeg dama leen di fay yaa mais euh, at mu jot looy deet wax man du ab sëriñ bu am ami taalibe ñuy ñëw di di bay do donc du samay samay xale samay doom laa ci mën a dugal di leen orienté di leen formé waale ci ci liggéey bii bu ñu jàngee bu ñu ñëwee jàng mbay euh, donc nekk ci jàng métier waaye waaye li nga xam ne moo wér te wóor daal mooy Euh, nit ñi moom opérateur économique yi fii maa la ko wax xaw ma ku demagul ci weer agriculture mais des na tuuti secteur bi dana saturé parce que développement foofu rek la mën a jóge et mooy mooy li fi ëpp solo actuellement mooy li fi xam ne nii kuy wut euh, euh, marche wala kuy wut bénéfice maanaam ci loolu ngay da ngay dem tuuti dootoo gis lu ko tane dootoo gis lu ko gën a noppale doo gis cycle bu ko gën a gaaw donc loolu nag moo ci orienté nit ñi xam nga loolu mooy seet baykat yi rek. sélectionné baykat yi nga xam ne ñu ngi bay yow xam nga ci réew mi ay baykat yoo xam ne tey li ñuy bay euh, yow xam nga ko waay boo ko waxoon ci rajo sax ñu ne lii mënta nekk te yow teg nga ko sa bët xam nga ko xam naa ko mm-hmm. donc euh, ku mel ni sëñ Cheikh Saliou <laughs> gis nga li def ku mel ni sëñ Sidi yow maa yow ñooy bokk tool yi ba mu jeex mm-hmm. yaakaar naa ne loolu képp koo xam ne sa bët teguwu ci buñ ne la lii sëriñ bi da sëriñ bee ko bay doo ko mën a nangu waaw ah, man ñi nga xam ne xam nañ semence bi muy ji xam matériel bi muy utiliser xam boo récolter li muy doon nga xam ne développement ci agriculture rek la mën a jóge xëy na am na yeneen mais ci li ma xam teg ko sama ban mën koo certifié loolu ci laay wax en tant que Abdou Lahad Ka opérateur économique euh, Abdou Lahad Ka vice président chambre de commerce de Diourbel defe naa ne jiite naa INACOA lu mat neuf ans ci région bi départementale jóge fa nekk président régional jóge fa nekk vice président chambre de commerce ba bisab tey bii mais ci développement économique euh, ñaari ministère gannaaw bu président de la république defee lim ci lu bare bare lim ci war a def mais defe naa ne ci ñaar rek la war a mën a euh, jaare pour réew mi suqaliku àgg ci croissance foo xam ne dana bett nit ñi mooy ci ministère des mines ak ministère de agriculture ñaari ministres yooyu ressources yi nekk ci réew mi te ci suuf si ci réew mi ak euh, li nga xam ne mooy agriculture ñaari yooyu rek ci la Sénégal développement bi économique bi social bi mën a mën a mën a màgge ndax bu fekkee président de la république gis nga tracteur yi da ko indi subventionné ko am na sax euh, possibilité béykat bu bëgg te munoo ko fay espèce ci huit million quatre cent yi mu koy jaay donc euh, nga nga leb ko juróomi at donc ci banque CNCA gis naa mi ngi financé loolu béykat boo xam ne mën na leb tracteur juróomi at di ko fay loolu yaakaar naa ne te tracteur boo ko liggéeyee am at euh, ñaari at war nga ci mën a amortir deux ans waaw mën ngaa génne sa charge yëpp amortir ko bu fekkee ne lu béykat bu ndaw nga bu fekkee béykat bu ndaw nga mën nga ko amortir ci un an actuellement loolu man testé naa ko mhm. parce que wóor na ma ne tracteur bi bi ma ko jëndee ak million millions 400 mu ànd ak oxet bi ma jënd euh, machine u nji gerte donc am na machine u ji fii ne am naa machine u ndéqi am naa machine u mbàcc fii ne loxo amul dara lu loxo di laal ci tool bi parce que machine yi machine bi moo ko labouré moo ko ji moo ko déqi moo ko bàcc bees ko tool bi ngay gis yëpp dugub ñu def dugub tey daaw bi ñu ko defee trois jours la ko machine bi bàcc tegal ma fee gerte gi tegal ma fee ngooñ yi ci laa xolli gerte gii ngay gis ci jiwu gerte googu laa xolli jiwu denc ko moom lañ mooy bii ma ji donc loolu nag euh, su fekkee président de la république indi na matériel agriculture bu mel nii nga xam ne da ngay jógee ci ku daan béy une tonne kem bu leen neexee bay vingt tonnes kom wala trente tonnes boo daan ji benn tonne parce que fas boo yoree ñaari fas ñetti fas da nga naan une tonne kemb lay ji boo yoree benn tracteur mën ngaa béy dix dix à quinze tonnes kemb donc muy fukk ak juróomi li nga daan bay loolu defe naa ne développement mënu ko mënu ko weesu donc euh, bu fekkee ne aussi ci opérateur économique la boo xam ne calculer wul ne damay bay lu ma dundee damay bë damay bëgg rendement la rendement bu fekkee ne euh, maîtriser nga euh, programme mu mbay donc rendement foofu la mën a yem rendement bu am importance lay joxe parce que fii yow gis nga ko daaw li ma fi bojj ci dugub yaakaar naa ne Euh, xaw ma département bi du ma euh, directeur agriculture xaw ma nu mu def ay yaakaar naa ne statistique yi ñuy calculer bu ñu calculer yaakaar naa ne lii ma fi bojj ci dugub bariwul ñu ko boo bojj ci département bi donc loolu nag su fekkee ne matériel agriculture am na président it am na membre yoo xam ne ni ay agriculture la ñu war a nekk ñoo war a nekk exemple <coughs> quarante cinq départements yi ci Sénégal ñi ci nekk ci ay député un conseil conseil économique social ak i directeur ak i ministre bu ñëpp orienté woon dem bay parce que fii man juróom-ñeenti fan laa fi yendu daaw yoo xam ne toute la journée laa fi def neuf li ci des xale yee fi nekk bu ñuy ñëw danaa leen orienté wan leen euh, ni ñuy def machine yi nan la war a def nan la war a def ni fexe ba ba monter leen machine yi wan leen ko ñu liggéey donc li may def rek mooy superviser mais ñoom comme am nañ possibilité bay te suuf am na ci réew mi defe naa ne boo départ fii ba Dakar cas soixante dix pour cent ci te ci suuf si béyuñu ko kon nga xam ne Sénégal dañoo béyul dañoo béyul soixante dix pour cent ci suuf si ci surface bâti bi ñu am ñu war ko exploité soixante dix pour cent bi béyuñu ko peut trente pour cent bi rek la ñuy exploiter loolu nag bu fekkee ne ñii ñëpp directeurs yeeg ministres yi ak euh, au conseil yeeg donc donc conseil économique sociale yi ak député yi ñëpp dem nañ ci tool yi nekk ay ex département bu nekk ñooñu fa di njiit nekk ay exemple ci agriculture nit ñi dañuy daal di dañuy daal di sawar ci loolu mm-hmm. donc loolu moo tax dañoo comme nag am na matériel bi am na membre yi donc ne leen ñaax ci loolu rek kenn ku ci nekk département bu nekk ñu ñu ñu ah, waaw monter ñu ñoom ñëpp kenn ku nekk département bu nekk fas yéene nekk ne département Mbacké moo ñu mooy man département Bambey moo man département Diourbel moo man département Kaffrine parce que te am nañ possibilité bi te mbay du du lu lu am problème ñetti weer la lépp trois mois la te trois mois yi presque liggéey yu bare bare bari day arrêté mm-hmm. donc xale yaa ngi nii fii boo ñëwee ci tool bi da nga fekk eh, technicien buy liggéey xale bi ingénieur génie civil la bu jógee sa sant Youssou mi ngi fii di liggéey ñii ñi ngi ci seen i njàng maanaam ñi ñii def licence sax ñii def licence ren sax ñi ngi ci tool bi la ñuy xëy ñii bac plus deux ans yi el joob yëpp dongo yëpp fi li ñuy xëy. kon amoo benn doom boo xam ne jàngatee na koo liggéey bay. non ku xam nga jàng ay heure la ak bis. saa boo noppee heure sa heure njàng noppi wala sa euh, bis boo jàngut da war a dem liggéey ci tool yi parce que il nga former leen ci plan A plan B parce que nit du ne rek lii laa lii laa lii laa war a def wala lii rek laa laa man nit warul am euh, lu lu lu fa sës da ko faa war a sësale waaw. su weesoo mbay mi nga xam ne moo di agriculture Abdou Lahad Ka day defaale élevage maanaam sàmm ne bu yàggul rek ki nga xam ne moo di président Macky Sall jox nañ ko fi raaya. ci wàllum càmm. waaw élevage moom yàgg naa ci ma yàgg naa ci fanweeri at ak euh, juróom ba ma tàmbali liggéey ba léegi agriculture élevage mooy moom laay dox. Mhm. yaakaar naa ne gis nga président de la république xam nga décoré na ma araniru daaw daaw jéeg mi ngi ma décoré araniru ci élevage am na ñaari at yoo xam ne 2001 euh, à 2003 defe naa ne euh, prime élevage yi ci foire national yi ñu doon def man mii maa ko gagné woon sama benn nag bu ma jënde woon Brésil donc mu mu produit produit bu bu am solo donc moom moo moo taxoon ma gagné euh, prime boobu. fii ma nekk nii bu ma defutoon dara dara ci àdduna yi toog fii li may bay fii mënu ma koo dund mënu ma koo jeexal ci dund waaw dëgg yàlla ci dund nit dund dund rek dund loo dundee rek li ngay bay mënu ay ndaw yu nekk cim réew dañoo wax di liggéey. liggéey boobu nag waruñoo toog rek di xaar naan dañ leen war a dimbale ngir ñu mën koy def ndimbal na ca fekk loxol boroom ngir ku lay jàppali mën laa fekk ci loolee rawatina li nga xam ne moo di mbay mi. xale yi seet si nañ ma fi keroog muy les jeunes politiciens yi samay xale lañ Sénégal jënd gay Bassi Diagne ak euh, bàcc ñoom ñëw nañ fi bi ñëwee dama ànd ak ñoom dugg ci tool yi ne leen xollin lii sol lii solution C la da ngeen di yéen ngi ay fonctionnaire ngeen. yéen a ngi liggéey mais mboolem yéen ñii di liggéey liggéey bi ngeen di liggéey dara empêché wu leen ngeen dem def lii lii dem bay trois mois yi vacances yow kii day jàngale trois mois yi yi du def dara mënoon naa bay juróom bari te une tonne gerteem du ko yàqal dara donc bu école ubbee mu dem jàngale ji keneen ki war a def leneen def leneen chargé de mission bi bu bët bu set lañ ko soxla donc mën naa installer lii organiser ko dem di di di liggéey su liggéey jotee mu dem li comme ni may def nii su ma commune bi soxla maa nga ca su ma entreprise bi soxlaa ma pré war a présider réunion wala war a assister maa ngi ca bi soxlaa ma dem def ko su ma ci ñooñu yëpp soxlawut ma dem ci tool yi donc loolu nag mooy xale yi nañu nañu nañu nañu am ambition mm-hmm. te xam ne développement ak réussite moom ci suuf la gën a gaaw gaawee ci lu mën a doon waaw kon nag nañu songu liggéey bi te xam ne agriculture daal euh, euh, facteur la boo xam ne nii man développement la bu am solo mm-hmm. donc bu fekkee ne nag mënagoo dem ci mine dem ci ay industrie dem ci pétrole bee gaz bi nga nekk ci agriculture bi ba baa ngay àgg foofu. di sant yàlla di jëli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di ñaan sëñ Mountakha mu yàgg di waaye di ñaanal sëriñ si mu yàgg feer di ñaax euh, opérateurs yi ak euh, sénégalais yi rek euh, li ma sëñ Abdoulah <laughs> dénkoon as gor day sàmm ngorom nangoo liggéey te jub. ñett yi boo ci nekkee ku am jàmm danga am jàmm ku amul jàmm da am jàmm di leen wax ne ñett yooyu rek moo mën a fare nit fu ne fu ne moo mën a nekk ndeyi nit nekk bàyyi nit nekk wéeruwaayu nit am réew du dem mukk jëm kanam su fekkente ne fonkuñ bay loolee la Abdou Lahad Ka xam ba tax na at mu jot muy bay ay hectares yu bëree bëri bokk ci ñi nga xam ne dañuy participer ci développement économique bu Sénégal